ah Alaaji Boy Kéré maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Saliou di fay Medoune le grand caméraman aussi di am kontaan rek ak cër bi parce que am na loo xam ne cër la vraiment man mu xeebu mii ngeen fexe ba lijjanti boo xool fi ma toogee ngeen ñëw donc maa ngi leen di gërëm di si cër bi quoi vraiment. ana mbër. ana mbër yi wala ana mbër. ana <laughs> su ma ne mbër sa dooma tax may wax. waa mais ñaar lañu. waaw daa am mbañ ak yéen. jéen laa wax bala ñoo ñëw ci mbañu <laughs> waaw merci beaucoup dama lay tooñ rek donc di wax ne jéen mi ngi fi euh, mi ngi fi maanaam nag di di def li mbër yi di def mooy lan mooy ñu liñ ko sant yëpp mu ngi koy def mi ngi ci entraînement yu méttee méttee métti parce que xam na li koy xaar parce que boo xasee ba doon doomi mbër sa dara du yomb combat yi du gaaw a ñëw waaye day mel noo xam ne saa yoo gëjee bëre sax boo ñëwee ñu xam ne kii caaxaanul woon donc li ñu mën a xam si jën daal mooy mi ngi fi mi ngi entraîné di daas fanaanal ndax mën nañ koo xaar tey ñi renforcer ci VIP yi non mën nañ ko xaar parce que moom gëm-gëm boobu la am te ñun de en tant que Soumbédioune ak man mi baayam loolu la ñu loolu la ñuy won bu fekkoon ne jëfewu ko lu lu wax su boobaa mën a jëfewu ko wax mbaay lu mu gëm la parce que ñëpp xam nañ ne làmb yombul pour nga àgg fi gars yi àgg il faut nga liggéey lu gars yi liggéey te gëm na boppam bi ngi liggéey te def na nag lu tax ñi nga tudd léegi ba rek moom parce que xam nga làmb bu ñu wax nañu waxante dëgg rek bu fekkee ne def nga say preuve jaar ci ay yoon bu métti jaar ci booy bawal ñaar laa lay limal ne boo leen daane rek àgg nga ku mel ni booy bawal ak booy marle boobu ñaar ñooñu ku leen daan rek. ñaar ñooñu ku leen daan ci làmb laa la wax. amatul mbër bu loo xam ne rek war na la fa mën a bàyyi wala ñuy wiiri wiiri. jéen nag li ci nekk mooy euh, xëy na ñemee ko wax wala ragal ko wax mais gars yi ñemewuñu bëre ak moom. bëri na ñu bëri dañ dox seen ko ak yéen ñu moytu te loolu doxalu làmb ñoom ñooy mayante xaalis bu fekkoon ne deful deful ay preuve am ñooñu mun nañ ko bañ mais euh, bëri na ñoo xam ne doon nañ seen combat moom ñu koy moytu. waa VIP wala ñu gën a tuuti VIP. waaw xam nga làmb ay échelon la. wala jéen ci ban catégorie la bokk. fa Moussa nekk. waaw. fa Garga Mbossé nekk fa Siteu nekk. fa Papa Sow nekk jéen foofu la bokk. parce que li na lu tax ñi ma la limal nii kenn gënu ko palmarès parce que ñu ut utaluñ ko yoon. mais combat bu laqatu ngoog combat Papa Sow ak jéen ñaari ndaama yooyu ndax ñë njar ñëm la. mais déggoo la ma jéen ku bëreeg moom da bëre parce que doon na mbër gi mm-hmm. gëm na boppam te mi ngi te am na ginnaaw li tax nag gars yi du ko wiri wiri ñoom la rek mais ñun xam nañ ne yàgg yàgg dina bëre bu doon deful woon ay preuve am duñ sax wax mais dafa ñoom nangu na daan naa moo doonte rek mais egg na ci gars yi. mais ma ne. Hmm. diggante jën Papa Sow loolu ban combat la bu neex la rek. combat derby la de. non neex na trop. derby parce que ay ay naataango la mën nañ bëre. Eh oh. ñun tey li suñu problème combat jën yi neex na de mais pourquoi gars yi mënuñu ko jël ñun loolay suñu problème. pourquoi nanguwuñ ko jël parce que aussi xale bu fekkee ne def na li muy def ba egg si yéen da ngeen koy nangu mais ñu si bëri saa ñu leen jën ñu leen noo seeke des na lan moo fi des lan moo fi des maa daan marle uh-huh. maa daan booy bawal uh-huh. eh, maa daan Modou Anta no dëgg-dëgg wane na bu dee nag wax dëgg te yàlla rek tax wane na léegi nag nañ ko jël ba rek moom léegi dama gis euh, VIP ah. Balla Gaye 2 bëri naag Bombardier ñaari yoon Eumeu Sène bëreeg Balla Gaye ñaari yoon Eumeu Sène bëreeg euh, bu ki nga mooy Modou Lo yoon est que jotul tey arrêté ñu arrêté ko may yenn booy seen sens ñu yëg ci kaw su dul jéem sax ak yeneen booy nekk ci seen seen kaw. mais loolu mooy làmb xam nga tey làmb bu fekkoon ne lu CNG di doxal di dëgg ay combat su boobaa kon li nga wax ni CNG bi da koy def mais ay promoteur la doon ay privé ñoom ñooy doxale noonu mais nag xale yi bu ñu yàkkamti yow ñu ñi nga lim nii bëri naa seeg ñaar ba ñetti nit li des nag ñooy si la ñu entraîné xaar parce que ñii maanaam li des seen wërsëg wala li des si wërsëg si làmb ji moom la ñu lekk rek mais xam nañu relève bi ñoom xam nañ nangu nañ ne sax yàlla relève après ñoom xale yi dañu fañ tegoon seen tànk xale ñu ngi ñëw waaw boo xoolee am na si loo xam ne tul mënatul continuer ci làmb ji léegi dañoo war a may xale yi sens wala dañoo war a xajal xale yi ñu ñëw yëg ci kaw waaw non garab moom ci kaw lay fekkante comme que ñoom ñu ngi fi. te bàyyeeguñu. te yokkaat nañu seen âge. pour ñu bëriwaat. donc nañ may xale yi chance ñu bëri ak ñoom rek looloo fi am. dafa am lu xew ci làmb ji léegi. combat day ñëw bañ na sa 15 jours ñu ne dafa blessé wala ñu bëri ba pare mbër mi ñëw ne damaa bëri woon damaa gaañu wala damaa bëri waare bëri siin loo ci wax en tant que ancien gloire. waaw loolu moom euh, maanaam saltel victoire la rek parce que lépp dafa am yoon bu fekkee ne da nga gaañu Euh, demal nga wuti certificat médical ñu xool la médecin CNG bi xool la bu fekkee ne blessure bi dëgg la non am nga droit nga euh, ñu renvoyer combat bi mais munoo bàyyi bëre ba ci biir gi bëre bi nga naan dama gaañu loolu maanaam respecté woo sax ki ngay bëreel respecté woo yi respecté woo sax promoteur bi nga xam ne euh, moom moo la jox ay millions pour nga bëre loo gis lu ne day am dafa am yoon. gaañu nga déclaré gaañu nga te loolu baaxul day rey làmb <coughs> te actuellement ñoom toll nañ foo xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy mag ñi euh, luy do luy avancé loo làmb la ñu war a dox mais pas loo xam ne da koy def parce que ay millions ñu fay la ko nga ñëw bërewoo téye sa bopp làmb ji yax nga ne dama gaañu moo tax loolu loolu baaxul man cautionné wu ma ko te kenn du ko cautionné waaw dañuy ñëwaat tuuti ci li nga xam ne mooy wàllu politique ñoo gis ci élection yi sa diggante ak Bamba victoire Bamba Fall tey rek ci lu bari sa diggante Bamba Fall lan waaw xam olof dafa ne bëgg ñu koy fay. koo xam ne saa yoo xewle écurie Soumbédioune booleeg sa njaboot moom laa mës a gis maire taxaw carrément man <clears throat> ñëw ma seetaan si damaa ñëw pour sot si. te waxu ko nii rek de. da koo jëfee pendant le avant le combat pendant le après le combat. et xam nga saa su nekk rek day wane ne moom dafa am cofeel su Diène bañ na ko ba taxaw na ne bële bële moteur bu ndëgg Diène ma jënd 2000 billets. te man xam naa Bamba Fall du mu wax lu mu deful. moo ne promoteur bu bëgg bu tëgg Diène Kaïré man dinaa jënd 2000 billets te mun na jënd 3000 billets pour Diène parce que moom doomam la te xam naa gëm naa li muy wax kon ku mel noonu bu xewlee da nga ko war a jàppale. donc gor la lu ma xewle mu jàppale ma moom it bu xewle ma koy jàppale loolu kese mooy euh, diggante bi. nga nekk doomu Medina jàppale euh, ki xam ne mooy Bamba Fall ba mu gagné lan ngay xaar ci moom ak lan nga koy conseillé. waaw xam nga ñun moom lépp lu ñuy defee dañ maanaam dafa am ñun nu ñuy dundee. man dafa am nu may dundee boog maanaam yow li la war soo ma koy defal man aussi boo boo xamee li ma li ma war dama koy def ëllëg nag loo xam ne def nga ko rek damay jàpp ne. Euh, maanaam sotti ci la ak def ci donc di ko xaar daal di ko jàppale ci ay projet ñun moom dañuy ay ay ay taalibe lañu dañuy toog rek lañ daan dundee loolu la ñuy continuer dundee rek uh-huh. waaw man nag lu ma euh, loo ma mënti jàppale loolu jàppale wu may gënu si ma uh-huh. mooy loolu uh-huh. waaw te moom mu ngi ci quoi vraiment. diggante Eumeu Sène ak Bombardier bëri nga ak Bombardier waaw bëri ak Eumeu Sène combat boobu su ñëwee ci bëre kan moo avantage la. waaw parce que bon boo xoolee ci vivacité ak gaaw ak ak ak mën a bëre mën nañ jàpp ne Eumeu Sène moo ko gën les mais nag attention combat revanche la. en général combat revanche du yomb te Bombardier dafa am benn gëm-gëm bu nekk ci moom dafa gëm ne ñoom ñëpp moo leen mën a te daf leen di daanaat te gëm-gëm dafa am solo te ba léegi dafa dese doole moo tax duñu duñu du ñu bëri combat bu yomb combat bu métti nag la ñuy bëre li ñu leen ñaan rek ñoom ñaar nañ taxaw dëggal seen bopp ba nga xam ne li nga xam ne amoon na temps yi si VIP yi bés boobu mu bañ a am mooy nañ bëre daal ba amateur yi kontaan kii daan daanu kii daan daan. mais dama gis combat VIP te combat bi fi a leer. combat guy gi jox mais ci des yëpp te ay meilleure attaque lay jeex ay décision médicale léegi lan nga ci wax loolu dëgg waaw je crois bien que ne bi am na si ay jàngat. ba jël nañ si ay leçon léegi. léegi foog naa ne même boo amee cinq avertissement da nga bëre ba temps bi jeex. xam nga loolu am na solo. waa parce que bu njëkk rek avant ngay bëre rek. boo moytuwul nga am deux avertissement parce que trois parce que gàllaaj yi ngay indi la. wala yenn ñàkk respect yi yenn kii maanaam li CNG teg mais léegi dañu ne dañu ne même boo amee dix avertissement da nga bëre ba temps bi jeex buñ lay sanctionné ñu sanctionné donc loolu macha allah lu ñuy tàccu la parce que nit ñi dañoo bëgg bëre ba bëre ba naaw bëre ba bëre ba dugg boîte vocale macha allah vraiment loolu ñu ngi rafetlu CNG boobu liggéey boobu. sa temps bi ngay bëre ak ak temps bi fan nga gën a gis sa bopp ci làmb. waaw ñaari temps yëpp xam na nañoo bokkul làmb léegi la war a gën a neex parce que léegi la xaalis bi gën a bëri mbir nag boo leen koy def mu gën a bëri xaalis yéen ñi koy def da ngeen di gën a góorgóorlu gën koo téye gën a góorgóorlu gën koo téye parce que dafa am loo xam ne mi ngi am ci làmb baaxul mooy li xale yi def image bi rafetul parce que bëre daan la ak daanu. léegi ñu seet na sax même boo daanee sax boo daanee sax yàq. te loolu baaxul te am na loo xam ne gis nga dañ da nga koy def ñu téye sa reliquat. Uh-huh. te léegi dem nañ ba si yàgg di jàpp ñi nga xam ne ñoo koy def. Uh-huh. léegi li ci xam lan moo ci métti léegi lépp ci kaw mbër mi lay dal. danañ dagg sa xaalis jàpp say supporters yóbbu leen tëj leen. léegi nag foofu mbokk yi léegi yow mbër mi boo jógul. dañ naan léegi mi ngi nii bëre na xale bi jàppale leen tëj nañ ko gisuñu ko. Uh-huh. donc yooyu na ko xale yi bàyyi. du ay image yu rafet ñun ay doomu aadama lañ dañoo war a respecté suñu bopp mais bu ñu waxee ñu naan non stade bi liñ ko tabaxee bokkul ak suñu culture yooyu ay wax yu ñaaw la lan mooy suñu culture lan mooy culture Sénégal bañ ne li stade bi mais ni mu rafetee nii lan moo gën a rafet lii pourquoi ñu naan kon ñun du ñu ay nit communication boobu baaxul ni ñu ko defaree dëkk kenn mënu ko tabax te amul discipline. xale yi nañ am yar am teggin ñu liggéey réew mi. képp koo gis nga xam ne ñoo parce que bëri na ñoo xam ne làmb indiwu leen fii. ñiy jàmm ak ñiy raas dem du benn nit ñi xam nañ nu mu demee. ñi nga xam ne buñ bëree stade bi yàq wala ñu dëkk ci dëkk bi arrêté nit ñi xam nañ leen. mais li problème mi nag ñeme ko wax. wala war ragal ko wax parce que boo tuddee tur sax yaa ngi ragal boo liggéey supporter ñooñu kañ la uh-huh. am fu ñu jaar ak yow uh-huh. waaye ñi nga xam ne saa yu ñu bëree uh-huh. lamb ji am problème nit ñi xam nañ ko man la du ma journaliste du ma reporter ñi nga xam ne yéen ko yor ñu ma leen wax wax ji rek dafay metti gars yi gars yi faj ko loo wax ci impro non di leen di leen sant kii kii euh, Medoune moom dafa yàgg ci milieu bi lépp lu may wax nii moom a ko gën a xam dëgg la lépp lu may wax moo ko gën a moo tax li ñu leen di ñaan rek nañuy nañuy informer juste et vrai gis naa ko ci moom euh, média dafa garaaw mun nga defar nit mun nga yàq nit mais bëri na actuellement yu ay dérive yu am ci Sénégal bëri na ñoo xam ne ñu bëri ñu ñu ngi ñu leen di dëkk micro wala ñu ngi yor micro ñu ngi ñu ngi ñu ngi yàq lu bëree bëri te média da nga war a defal Sénégal foofu la toll fi mu nekk nii ñoo xam ne tey jii moo tax l'état dafa war a jël ay mesures képp koo xam ne sëñ nga wax nga la waral waralul taal dëkk bi non ñu ñu tëj la ñu tëj ko. waaw parce que d' accord euh, multi euh, baax na nguur bi mais nag bu demee ba nga xam ne mi ngi indi ay yàqu-yàqu. ñu jël ay matuwaay. mais bëri na ay ay ñoo xam ne boo leen dëkkee micro. te boo seetloo. sama njaboot laa wax de man dama maîtriser naa leen. dama leen la ngay muy jéen muy mbañik tolluwu leen ci ay wax. ndaw boo tolloo ci jëf da ngay jëf bàyyi wax. dëgg la mais tollu ci jëf du bu léegi xale yi naka la ñuy siiwee. média bi rek la siiwee léegi. nga am mbooloo nga def ni jékki-jékki daana pare nga. da ngay boo tolloo ci liggéey da ngay noppi nga liggéey. mais bëri na xale yi léegi seen wax yi bëri na te boo leen indee duñu bëri lu neex amateur yi. loolu baaxul. keroog maa ngi lay ziar. delloo